kon maa ngi fii tey ci njenne fii rawatina ci kër gi nga xam mooy macha allah sunu maam ju baax ja muy Señaar Jenn borom Lansar euh, ñu fekk fi tey xalifaam bu baax bi ñu gën koo xam ci turu sëñ Sidi Jenn macha allah ñu bàyyi ko rek mu nuyoo ak mbokku taalibe yi rawatina mbokk jullit yi sang bu tedd bi Jenn yaaram ñu ngi lay ziar baax. waa kay salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. maa ngi nuyu bokk taalibe yëpp di nuyu bokk jullit yëpp. di leen sant di leen gërëm di santit garçon mi fi yabal ngir ñëw jël fi ay cadeau ndax mom ci kër gi la bok ndax mbokk la ndax ay bokkam suñuy bokk la muy wa kër Alaaji Asan Faal bu ndaan ñooñu ay bokkam lañu te ñu ci kër gi lañu jeex tak seen lepp seen baay ak seen imam ak ñoom seen bopp kon bu ñu ñëwee sakku ci ay cadeau di lañ ko ci sanni magal gi mom daanaka léegi ñëpp xam nañu li sabab bi mooy yoonu sëñ bi mu demee woon ci géej gi su natt yu tar yi ko suñu borom tegal ba jeexal natt ya wax ko ne léegi pay gi rek moo des mu digli na ko ñëpp maa si sant ko yàlla loolu mooy sababu ak màggal gi. dina ci war nag muy góor góorgóorlu bu baax rek parce que yéen def ni mu ko waxee loolu man ci beer nu def ko loolu man ci tudd yàlla jàngal xuraan jàng xasaayit salaatu ala bi nu def ko. te si moytu lépp loo xam ni loolu naqari yàlla loolu naqaru sëriñ bi la ñu xam ne daal màggal du puukare du fo du tëgg du sabar ko man na sax doo si jàng lu alxuraan wala xasaayit rek ndax euh, wolofal sax néew ma daa xaay si kaluma ko waaye mos naa dégg sëriñ bi mu ne mos nañu gàmmoon njaareem ñu fay jàng ay wolofal bu ñu xëyee suba teel boobu sëriñ bi njaareem lay gàmmoo ak mag ñëpp ne suba teel seigne touba woolu Cheikh isa mu ñew mu ni ko hisa mu ni ko mbacke mu ni ko xana fanano ci dekk bi biig mu ni ko aha kay mu ni ko nga fanan ci dekk bi may mo ñu dima mband ne mu ni ko am mband mu ni ko waaw ñu fi kupp sama terre yi sama xassay di ñu fi képp kupp alxuraan di wax leneen kon nak nañu xamni magal gi mom li gën moy jang xassay jàng alxuraan def salatu ala nabi Ah, diggante Cheikh ak seigne touba momit day lu yaato yaatu lo xay ministre lo xadi dëkk bi daal fii la jébbaloo muy Touba gi nu nekk ci loo xam ne ni ko Serigne Touba waxee ni moom yonant bi bi mu jógee jëm ci yàlla sunu borom moo ko tegtal ni ko demal si yonant bi nga jàpp ba ma ndile ci man. sëriñ Beet moo wax ni wali yu mag yi yëpp ku ci ñëw ci man yonant bi moom lay tegtal moom yonant bi moo ko tegtal sëriñ Touba wan ko ko mu soog a ñëw dikk jébbul ci wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu waaw jërëjëf